مرادي وكب من أنكر باعترادي براني الباغي من الأمراد وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات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 برأني من كل عيب ومراد وخاد لي صحة في كل عراد بريت من عيوب نفسي بالتجاء إلا الذي أبوابه لم ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي an kulli sooyin waasan wa jannati yanqaadu minni ya salaamu an salaa lahu bi alihi wa afdalil malaa rasuluna ahmadu kulli alaa alayhi xayru salawaatil alaa suntu lahu abkaara am daahin ladaa من جيلوس لي وسف الخلدا قلبي سفى بكون ربي خلي حبي ولي جعل كسرا خلي وجه لي حلاوة الدارين وفيما جعلني جارين نفعني فيما مدى وما اختفى wa kawnu li bi munaaya maxtafa nafaani bi ma badaa maxtafa wa kawnuhu li bi munaaya maxtafa faritu billahi alkarimi wa rasul wa xisbi wa xustu minhu xay rasul ربي امتداء من به الباخي دفع أسن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تأتيني المنى والحكم يقود للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت بي لبس علم أهلا sëriñ bi mu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak yooyu ngërëm wax ne waxtaan wi sax demagun ca muy la mu war a daje ak bokk yi ni mu ko waxe woon yëkkati kàddu yu cant jëme ko ci ñoom ci beneen nee ba bis boobee sëriñ Tuubaa rek a taxoon waaye ci ndigalul kilifaam di sëriñ moo Modou Rokhaya ñu bokk ko ñoom ñaar waaye bu demee ba tey jii bis bi amuñu néeg yum xaj amuñu mbaar yum xaj amuñu kër yum xaj nee na loola moom ak sant yàlla la ci moom ndax nee na moom mi mu woon ci moom la sëñ Abdoulaye waxoon ne neexeetu dëkk bi day ku fekkiwut gent ba doo ko mën a xam waaye ku fekke woon gent ba nag lu dolli ko ci dëkk ba danga ko xam waaye nee na bis bii moom mi ngi ciy sant yàlla bu baax ndax wóor na ko ne bis bi yokku na wóor na ko ne it ne borom yokku na waaye wóor na ko ne noonu mu yokkoo it ne lay yokkoo ci ay xéewal ne lay yokkoo ci ngërëmul yàlla bu dee bis bu njëkk ba su fekkee ne nee na jàng nañ fi alxuraanit it ñu fi lu ëpp ñetti kaamil ba fukki kaamil waaye wóor na ko ne tey jii liñ fi jàng ci alxuraan buñ ko doon seet ay nangami junniy kaamil lay doon liñ fi jàng ci xasida buñ ko doon seet lim dana bari buñ doon seet it daje ci ay bokk ak i kilifa bu buñ leen seetee mbooloo mu bari lay doon kon nag bis boo xam ne baat rek ko yëkkati woon ñu dem ba rajo yi ak télévision yi di ko wane adduna bépp di ci jëm si nee na ñaar ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo sosoon bis bi kenn ku nekk sant yàlla war na la waaye nee na moom sant na yàlla bu baax ci dolliku bis bi waaye xam na ne it sëriñ Cheikh mi ngi sant yàlla bu baax ci ni nga xam ne ni la ko sëriñ bi faye loolee nag moo dugg ci liggéey bii nga xam ne soxna ab sa ba bis bi sosu yàlla dogal na fekk ko woon ci kër gi bis bu sosu mu ñëw ànd ak Serigne Cheikh ci biir liggéey bi yàlla xaasal ko ci cërub boppam boo xam ne pas-pasam ak yitteem akuk dogoom moo ko ko may ba mu agsi fii nee na kon bu andee jëf ji sëriñ bi nee na mënoon na koo joxe ca Daaru Salaam toog Daaru Salaam ca du tee mu jot ci tuyaaba ji mënoon noo yow ni ndawit mu andi ko ku mel ne soxna May wala soxna Bintu ñu andi ko te du tee nga jot ci tuyaaba waaye nee na bi mu agsee li tax mu ne demal wool ma ko mu génn te nga woo sëñ mu toog fii nee na ak cant borom day toog ñu seere ko àdduna bépp dégg ko ndax yonent bi suñu borom da ko waxoon ne ko buñ la defalatee xéewal na ngay sant yàlla nee na kon sa liggéey bii mu ngi lay seereel ak cantam ak ngërëmam te ak cantam ak ngërëmam mooy yóbbaale cantuk sëriñ seex mbay ak ngërëmul sëñ Cheikh Mbaye ak ngërëmul sëñ Modou Rokhaya nee na di la ci ñaanal yàlla lépp luy sëg bëgg suñu borom defal la ko lépp loo ragal it suñu borom dàqal la ko ba doo ci teg sa bët fay la nag fay la ci sa njaboot ba nga toog ñoom ñëpp ñu la koy defal nga fekke ko sëriñ Cheikh fekke ko kaddu yi la ma waxoon ne ma buñ toogee naa ko jottali wax na ko ay yoon nag na ma it mbooloo mi maa war a dem sant leen yeewi leen dara waru ci sëñ Cheikh mbay boo gisee ma ne naa toog ba waxtu wi ma ñëw damaa bëggoon bu ma ñëwee fekk ñëpp añ ma dajeeg ñoom ci baas bi santal leen sama bopp yeewil leen sama bopp ndax bis bi sëñ Cheikh woote képp ko ci war waaye li ci des lépp man man mi la war kon nag nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla lépp loo mën yàlla nay asakay li ngay man bu déwénee te mbooleem ñi lay jàppale yàlla bu ci kenn manqué te la ak wér ak sutura ak taraanga ci barke Cheikhul Khadim. bor bi ma leen amee li tam. nee na bor bi mu leen amee li tam. yu bëree bëri. nee na du wax benn bor. ay bor yu bëree bari la. ameel na ameel na bor boobu waa Longoor. ameel ko sëñ ameel ko sëñ Cheikh Mbaye. ameel ko ay ko say bokk. ameel ko ay say xarit. ameel ko ay dëkkandoo. ameel ko it say dëkkandoo. nee na sëñ Cheikh Mbaye kuy jàpp kuy jàpp. te bëgg jàpp nit ku baax. te bëgg a jàpp nit ku baax. bëgg jàpp ku sell. jàpp nit ku sell. jàpp ko. jàppal sëñ seex mbay ak sa fukki loxo. ak sa fukki loxo. ndax xaritam yii kat. ndax xaritam yii ku mel ne sëñ Njool mii. ku jëwriñam ji ak ñeneen ak ñeneen. ak ñeneen. yàgg nañoo ak moom lool. yàgg nañoo ak sëñ seex lool. waaye dañuy dolliku. waaye dañuy dolliku. di jëm kanam di jëm kanam. waaye delluwuñ ginnaaw waaye benn yoon. loolu nag defarug suñ boroom loolu nag defarug suñu borom la. sëriñ bi ak sëriñ bi. moo ko mën moo ko mën. seere si seere si. mooy tool àllarba fii sëñ Modou Rokhaya. mooy tool àllarba bii nga xam ne moom la daan bayal sañ sëñ Modou Rokhaya. mën naa am xawma ma lu njëkkale de nu mu toll. waaye tool boo waaye tool boo xam ne. dem na ci téeméeri saako ak ñaar fukk. dem na ci téeméeri saako ñaar fukk. ku ko bay. ku ko bay. ca doon jàppale. ña ak ña nga ko seqaloon. ak ña ko seqaloon. ñëpp ak pay. ñëpp nag ameel nga leen ak pay. te du ren rek. te du ren rek. cantug ren gi. ren gi. ak goog daaw ga. ak goog daaw jégg. boo ko boolee. boo ko boolee. du ma mën a fay bokk mën a fay bokk yi. du ma mën a fay dongo yi waaye sëñ Cheikh mi duma ko mën a fay ndax xam naa ne mbooloo mi koy jàppale ci liggéey bi ci li ma ci gis muy taalibe yi ak jigéen ñi ñooñu moom gis naa leen ña nga ca xam ne maa ngi yéen a ci yem bu ñëpp tëddee ñu ñëw di ko bayal ak di ko liggéeyal loolu yéen a ma ko gën a xam. kon nag koo xam ne daa am saayir am baatin bu la yàlla boolee ak moom da dangay sant yàlla bu baax loolu ma wax ci soxna Absa wax naa léegi ci yoon wi ne pësteefam pësteefam Seydina Abou Bakrin Seydina abu Bakrin moo njëkk ci yonente bi. moo njëkk ci yonente bi. sallallahu alayhi wa sallam. tey defal na ko loo xam ne. tey defal na ko loo xam ne. defe woon na ne kenn mënu ko. woon na ne kenn mënu ko. muy ba yonent bi jógee Makka. muy ba bi di gàddaay di jógee Makka. di jëm Madina. di jëm Madina. ba di topp. dugg nañ ci pax moo xam ne. dugg nañ ci pax moo xam ne. wala lëm moo xam ne. wala lëm moo xam ne. gis na fa jaan ju rëy mu jëm si ci yonent bi mu jëm si ci yonent bi mu fab tànkam sakke ko pax ma jaan ja ne jaan ja màtt ko yonent bi yëgu ci dara xanaa ni mu tëdd ci kaw Aboubacar soonu la gis ñaqu Aboubacar di sotti ci kawam mu xam ne loolu am na waaye kero nag ba bisu joxe addiye jotee muy xare boo xam ne yëstu yonent bi musta xare xare bu ni man Seydina Ousmane moo ca man Seydina Ousmane moo andi téeméeri gëléem ak téeméeri njaqi urdu ngurdu ak ay fas ah, daa di wax yonent bi ñii xare ji nañ war ci gëléem bu doyut ñu war fas yii xaalis jeexee. bu xaalis jeexee. ma andiwaat ma andiwaat. loolu. loolu. Seydina Ousmane. Seydina Ousmane. yeex na ñëw. yeex naa ñëw. waaye. Euh, pësteefam. pësteefam. moo tax mu àgg foofu. moo tax mu àgg foofu. loola. loola. mën nañoo wax ne. mën nañoo wax ne. mooy yeesluwaat. mooy yeesluwaat. loolu. loolu. soxna Absa def na ko. soxna def na ko. am nañu ko fi njëkk. de. te doonoon ay jàmbaar. ay jàmbaar lañ lool ndax man bi ma fi daan ñëw ñoom laa fi daan fekk ñuy ay jàmbaar lool waaye jëfam ji nag moo ko xalaatal boppam di ko jëf di ma ko jagleel kon faawu ma sant la danaa la sant ñaanal la ñaanal sëñ Cheikh ñaanal ñi la fi ñi nga fi fekk. di ñaan itam nag njaboot gi barkeel ndax jëf ji réy na lool jëf ji rëy na lool kon mbooloo mi ma fi fekk maa ngi leen di xamal ne day fu ngeen mën a jóge moo jóge fa lu mu sori sori ñëw daaru salaam fekk fa sëriñ Touba fekk fa maam Cheikh Anta ñu defar la moo ñëw longoor gii ñoo yem kon nag longoor moom ku ko man boo ko fekkee tee na nga fi ñëw boo fi ñëwee da nga fi fekk sëriñ bi sëriñ Touba da nga fi fekkit maam Cheikh Anta da fi fekk sëñ Modou Mamoun da nga fi fekk sëñ Modou Rokhaya da nga fi fekk sëñ Abdou Khoule mbay di waajuru sëñ seex mii sëñ Abdou Khoule mi nga xam ne. dañ koo duyoon duy ba mu fees. dañ koo duyoon a duy ba mu fees. guddi gi muy ñëw fii. guddi gi muy ñëw fii. daanaka. xamoon na ko. xamoon na ko. sëriñ Modou sëriñ xamoon na ko. sëriñ Modou it xamoon na ko. kon nag. kon nag. koo xam ne. koo xam ne. anam yi nga nekk yëpp. anam yi nga nekk yëpp. wet gu wet gu ne. boo wëlbatikoo. boo daj wàlliyu. sa ginnaaw. ci sa wet ci sa kanam kooka daal lum la ñaanal danga nga ko am kon nañ jàpp sëñ Cheikh ak fukki loxo yàlla na fi yàgg moog njabootam gépp te lii soxna ab sa def so sëriñ bi nee na mi ngi ñaan nga gën koo man jërut ñaan sax wóor na ko ne rek ne da koy gën a man da koy gën a man sëñ Cheikh itam. ñi mu àndaloon ci tool dugub bi dañ koy gën a man rek dañ koy gën a man ndax kër gu ne ci Touba sa dugub ji dugg na fa kër gu nekk Daaru Salaam sa dugub ji dugg na fa gu nekk ci gaawaan dugub ji dugg na fa te borom kër ga ak njabootam ay ñaan képp lañ ciy teg loolu nag damaa defe ne sa wayjur wu baax wa di Cheikh Mouhamadul Mamoun di Cheikh Mouhamadou Rokhaya loolu képp lañ rawee woon seeni morom te sëñ Touba moo ko digaloon sëñ Modou Mamoun da ko del joxe ñam joxe ñam lépp a ngi ci kon nag ñam wii ñu tiim ak dugub ja ñuy séddale lépp ak yokkute la jërë ngeen jëf.